Anyways.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 saafara mala yi tamit naka noonu ñu feebar ñi seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sàkk ki saafara waaye nag jàngoro réew mi moom kenn saytu ko ba ci sàkk saafara moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca technopole romb na doy waar ñetti borom charrette daal ñoo fa ci ab jigéen boo xam ne at toll na ci fanweeri at ak ñett dal di dal ci kawam violé ko pëtalaw ma mbir moomu mu ngi xewee ca technopole te ndaw si jigéen suñu def yëf yi sax nee ñu àndul ak xelam ndaw soosu nee nan dañ ko yónni woon ca technopole ci ab sëriñ ngir mu jële li maamam ay débat déeb yoo xam ne sëriñ bekk ko defaloon gannaaw bi mu demee jëli garab yooyu nag bay ñibbi ci la ko ñetti borom saret yi kooj naka noonu ñu song ko daal di koy daaneel su mu yére yi mu soloon dal di yegg ci kawam potalaw law si nag gannaaw ba ko ñetti borom sare di daa def loolu ci la yuuxu yuuxu yu metti ba jardinier yi fa nekkoon ñoo ko dégg dal di ñëw wàllu si ko bi jardinier yi egsee bi leen ñetti borom sare di gisee foox la ñu def daw waaye jardinier yi topp leen topp leen ba ne ci ciix kenn ki nga xam ne mu ngi woo ci sd ñeneen ñaar ña daw ma ne ko doo leen rëcc de jardinier yi bi ñu jàppee benn borom saret bi dañoo informé wa commissariat bu Pikine naka noonu ci la gaa yi commissaire mam Arona Baye dal di egsee ci béréb bi ndaw si jigéen suñ doon violé na bi ko lankete dafa wax mbir mi yépp ni mu demee waaye benn borom saret biñ ci jàpp moom bi ñu ko lankete da doon xiini xiini maanaam di weddi mbir mi bi ko gaa yi sëkkatale tegul dara ci seeni nopp nit xam ci lañ ko tegee ay daan ma ne boo deful dara saw lay day yomb fi mu toll nii nag borom saret boobu ñu teg loxo dugg na ni ruba ndax fi mu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 pëtëlëw ba noppi li ci gën a doy waar na ndaw si bi mu defee li muy def ba noppi def ne jinne yi ñoo ko ko sant <laughs> ma ne lii moo tax ma du ma takk ñaareel mbir moomu nag nee ñu nii la demee ñaareel bi def jombe li at yi mu ngi toll ci fukki at ak juróom-ñeent ëmb boole ci moom dal jëkkër ji nga xam ne ab commerçant la dafa jëli aaw bi ñëw boole leen kër ñoom ñaar ñu dëkk waaye bi aaw bi ñëwee nag ci la coow li tàmbalee am ci kër gi ndax ñaareel bi nee a xaaw bi daal jàmmam la ko xañ ndax bi mu duggee si kër gi ba léegi xamatul jàmm ak jëkkëram ñoom ñaar ñu nekkee noonu ci kër gi ku nekk di xoolee sa morom bëti nooneel yenn saa yi ñu jàppante waaye ñaareel bi nag li mu def moo ñaaw dafa xaar ba seen jëkkër ji nga xam ne commerçant la xëy wujj bi génn dem mu dal di seen doom bi nga xam ne am na treize ans di def semm de woo ko ne ko daf koy sang fekk booba teg na ci marmet bi ndox dal koy ta tàngala tàngala tàngal ba ndox mi di baax ndaw si daal bi mu jëlee xale bi dugal ko ci duus bi jël ndox mu tàng mi xëpp ko ko soode ko la def ñu naan deetawaay mu tëj ko ci biir douche bi way way kii nekk xale bi yuuxu yi mu doon yuuxu moo alerté waa koñ bi ba ñu daw ñëw dugg si ci biir kër gi bi ñu ñëwee xool douche bi xale bi di yuuxoo fekk tëj yu dal di dajji bunt bi waaye bi xale bi génnee ak melokaanam maara dee taali kenn mënu ko xool fi mu ne xale bi ma nga urgence nekk ci diggante dund ak dee <laughs> way way ma ne kii a nekk yow wujje dong tax nga jël koo xam ne sa doomu wujj la mar mitu ndox ba mu tàng xëpp ko ko soode yaramam ba xale bi nekk ci diggante dund ak dee billaay ko bàyyiwul takk ñeenti jabar danañ la faat mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz